tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo eh, tukkee ci yaakaar Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di ñaan mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp xikma yi ñuy tàmbali nga xam dañ koy def ay xaaji xaaj ku ko mën a tasaare say mbokki taalibe itam nga def ko ku ko def yàlla na suñu borom li say xéewal bu baax a baax te dolli noo musal dolli noo dolli noo aar ndax li ko waral mooy eh, mawdu bi nga xam ne ni moom lañ bëgg a def ay xikma day tomb bu am solo muy eh, alhimmatul aliya te mooy yitte ju kawe yitte ju kawe nag dafay cëslaay ci yoonu murid maanaam maanaam mooy taxaw moo moo moo taxawal yoonu murid wala boog ci la sëriñ bi taxawale yoonu murid ci ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalul suñu borom tabaraka wa taala kon ñoo ngi ñaan ku ci jot ku nekk rek incha allahu nga tasaare ko am naa dañu ko def ay doggi dog bu ñu tàmbalee tey boo ëllëgee ñu andiwaat beneen def ci suñu kamt laay kàttan ndax géej la te géej mënee su ko jeexal incha allah di sant mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi bu baax ci jàppale gi ñuy jàppale ñun waa Hikmatul Yawmi te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir gis nañ jàppale gi bu wér a wér a ñi bokk ci ñi bokk ci jamhiya bi muy association ak ñi ci bokkul nga xam ne nii nit ay defkati lu baax lañ rek ak ñu sàkkukati tiyaabo seen benn dërëm yeeg ñaar ñaari téeméer yeeg li ngeen ñu yónnee fi daara ji agsi moo ko fi indi te ñoo ngi leen di bégal ci nekkat daara ji yàggul waaye ñoo ngi xalaata yokkaat eh, ay barab yu gën a yaatu kon nag loola ak sant la eh, ñoo ngi ci soññaate bi suñu bopp waaye di ci soññaat mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp di leen xamal ne itam eh, ñi bokk ci jamhiya bi tey def seen dara ci liggéey bi ñoo ngi ñaan ñu yónnee ci whatsapp bu numéro Hikma bi seeni seen seeni vocal ku ci dugal dara wala kuy laaj dara nga yónnee whatsapp mooy gën a yomb sax woote bi léeg-léeg te whatsapp bu euh, numéro Hikma bi mooy 77 633 77 56 ku yónnee ci whatsapp bi incha allah mooy gën a gaaw ci ñu tontu soobee suñu borom ñoo leen di jaajëfal xikma euh, bi ñu andi tey te war koo tàmbali nga xam dañ ko def ay xaaji xaaj mooy alximma al aliya yitte ju kawe yitte ju kawe nag moo sos yoonu murit ndax su borom tabaraka wa taala moo yebal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu fekk sëriñ bi ci Mbàkke Kajoor wax ko ne ko nag li nga nekk de lu baax la ndax sëriñ bi dafa donn ak mbaax donn alquran donn diine donn xam-xam donn ak sell wax nañ ne sax jamono boobu daana toppal ab dong alliwaam jum bind te xoolu ko muy beqi mu bind nisif wala robo sëriñ bi topp ko ba mu jeex te du ci gis benn yàq mu ne ko lii de lu baax la lu rëy la waaye am na lu ko gën a kawe buñ ko laajee ko waaw am na ndax am na lu gën a kawe li li gën a kawe li kon lu mu mu ne mooy nga fexe ba ba e, xalim ak borom ko buy bind àtte nga dégg kii kii jami def loolu kon mooy la bi tekk mooy àgg ci yàlla ci la ko yonent bi sallallahu alayhi dikkalee ne ko nag rabbi asaabaka bil himma nga xam ne baatub himma moom la jëfandikoo yaral gaa yi ci yitte wala tarbiyam bi dar si faqat bu leen yaral te ci njàngal njàngum kese kese kese kese kon boole ci yitte yitte ju kawe ca la wooyee ñu nekk ci daara ji ñëpp nag wax leen loolu yi ah daal wax na képp koo xam ne nag njàngum kese képp la fi andi ñuy jàngale bari nañ waaye koo xam ne nag yitte ju kawe jii ma yont bu wax ci nga bëgg a ànd ak man ngir ñu àgg ci yàlla faaw dangay jaayante ak man ñu ànd wuti yàlla moo tax ma rabbi asabak bil himma wala tarbihim bi darsi faqat wa rabbi kulli waahidin minhum bimaa yaliiqu bi yonent bi ne kon kenn ku nekk na ko na nga ko yar ca yàlla ca moom ba mu waxee loolu daal nag kon nag képp ko àndoon ak man ngir njàngum kes yeewi naa la ko ànd ak man ngir àgg ci yàlla rek da jaayante ala man sahibana li ta'allumi faqat fal yartahil wa man arada ma aradna fal yubayi'ni wala yasri ma'i su ko defee la ëpp ci donk yi ñu ci bari dañoo dem lu néew des fa jaayante te mbir buy juddu te nar jëm karam noonu lay juddoo lislaam noonu la juddoo dina ko nettali sëñ Modou Lamine Diop Dagana ci Irwa un Nadim noonu la ko andee la ëpp dem la gën a néew rek des fa yitte jooju nag mosu caa jóg moom sëriñ bi ca la daan yaree tamit naka jekk Cheikh Abdoulaye mi ngi nettali ne sëriñ Tuubaa ba mu yaree ci alquran ne allahu wa rasuluhu axaqu ay yurduuhu in kaanu muminin nee na ca la tàggu ko sagoom tëlatut dara booleetu ko dara muy alquran dafa wax ne yàlla ak yonentam kon ñoo gën a yay ci ngeen sàkku seen ngërëm waaye ba mu jógee wuti yàlla nag suñu borom tabaaraka wa taala daal koy joxoñ yonent bi nekk nag walaatul buyuuta min abwaabihaa ab nekk da ngay jaar ci bunt ba te kee mooy sama bunt muy yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam moo tax mu ne suñu borom moo ma tegtal yonent bi yonent bi womman ma nag ba ci suñu borom dallani llaahu ala muhammadi wa muhammadin lis samadi jaayante ak bi nañ ko yemale foofu bu subaa ñu jàll fas na lu ñu ci andi itam mu am cëslaay ñu indi fa ko Sëriñ Tuubaa bind waaye duñ wax rek ci defe kon ñoo ngi santaat mbokki jullit mbokki taalibe yi di leen soññaat ci jàppale gi ñuy jàppale waa daara Hikmatul Yawmi bi lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ba ci la ci lañ taxawale daara internat yi nekk Thiès te ñoo ngi xalaata yokk incha allah.